الحمد وشكري والكل بيسا لو إذن دون سقط عند سرسارا حمدي وشكري لمن كل بيسا لو إذن دون سقط عند سرسارا لو صنع يواريد وعن البلا ثقات مسقاد لي من بني ديمان أنسى أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk leen di nuyu di leen siyaare baax di santaat yàlla bu baax ci tawfeex jëm nu defal ñu dellu siwaat ci bis bi nga xam ni mooy bis bi nu baaxoo amal at mu jot te mooy bàyyi ko fii ci Touba dem Sarsara ca Mauritanie di sant yàlla nag di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sama borom yàlla may ko fan gudd loolu waan ak wér ak mboolem taalibe yi santaat bu baax a baax nag jëwriñ ji nu baaxoo àndal muy soxna Mame Issa Mbacké ONC présidente ONC ONC Ahlu Café dellusiwaat nañ fas yéene àndat ak yéen départ waat fii ci Daarul Mannaan ngir fas yéene dem Sarsara incha allahu taala nuy ñaan sama borom yàlla defal nu jàmm ak xewal ci biir loolu nag fas nañ yéene ànd ak leneen ci bokki taalibe nu wax nu départ bi naka la ak fa lañ jëm muy Sarsara incha allahu taala kon Serigne Cheikh Samb da may topp rek nu xool bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi waaj ngir bëgg a dem Sarsara lillahi kul lilada abarumay kurmatin minartel na wa fi أجم من سارا إن الذي نيل سرزر خير قسد سيارة الفارخ daarayni aw mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi am mbégte àndaat ak yéen ci seen màggal gi nga xam ne ñu ngi koy amal at mu jot muy ziar Sarsara te Mauritanie xam ngeen ne nag at mu jot fii la ñuy déparé ci Touba ci Touba Daaru Mandaan ànd ak nag ak euh, ki nga xam moom mooy daayira wala ONG allu kafe soxna maam Issa Mbacke nekk ci bopp ba ànd délégation boo xam ne tamit mi ngi leen di teeru ñu ànd daje fële nga xam moom mooy Louga comme ni ko baaxoo di def at mu jot rek bala ñuy départ soxna si di yëkkati ay kàddu ñaan euh, wax ñu tamit yëg-yëg bi nga xam ne ni moom lay am at mu jot ci bu ñuy départ rawatina ci waxtu wi nga xam ne buñ julee fajar ba pare janoog nag jumaa ji nga xam ne foofu la ñuy jàkkaarloog jëm jubali Louga hmm. soxna si Euh, ziar Sarsara namoon na la daaw ndax gis nañ ne tamit maanaam dafa mel ne da ngaa tamit waaye ren tamit mu mel ne liggéey bi tàmbaliwaat ko. waaw ah, a mina shaytaan rajim bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bu baax ci teewaay bi ñu teewaay fii ren yàgg fee teewaay at comme ni nga ko wax nag baaw nag demuma woon waaye coobare suñu borom la waaw ka taxoon dem woon yal na ko yàlla xare àjjana fa suuf ci kawam jéggal ko mboolem mbay dawli yëpp ñu santaat yàlla bu baax ndax mu neexoon du duñu fekk rek mu fekk ñu fi ñu waajaat dem kon loo sant yàlla rek la ñu koy waaje ci kër Sëñ Tuubaa gi nekk ci Daaru Manaan at mu jot ñu fi waaje muy wane ne rek ñun dañoo nekk ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa guddeeg bëccëg suba ak ngoon ci lañ nekk moo tax ñu mën a départ wuti wuti Sarsara béréb bu tedd ba nga xam fa la Sëriñ Tuubaa nekkoon gis fa ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu joxe ko werdu maa fa bismillah mu ne béréb bi képp koo xam ne fekk nga ma fi tàggoo nga ak bàkkaaru àdduna ak àllaaxira te la mag ñu bari tàggoo won ak bàkkaar ngir siyaar bi ñu daan siyaar ku tedd gookee di Seexuna Seex Ahmadu Bamba muy baax ku yiw tedd koo koo xam liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kooku mooy Seex Ahmadu Bamba ñu ne fa dem ñu ñaan yàlla eggale ñu fa ci jàmm ak képp ku bëgg a dem fu waaye man de joge rek ci senegal ak ci réew mi jëm Mauritanie yàlla na yàlla teg ci yoonu jàmm ñu ne yàlla te ñu ci yoonu jàmm ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm lépp luñ ko waaw. Euh, li ci des ki ñu ko tuddee Cheikh Mouhamadou Lamine euh, xam naa ne dañuy àgg bu ñu demee ba ca fan daan gën a waxtaanee muy ci a wax ci xam ne moom lañ ko tuddee xam naa rek euh, ñu jox la rek tamit ñi ngay ziar ci kili kër kilifa yooyu rawatina rek wa ak njabootam gi nga xam ne ni am nañ jot ne dana fa teew. waaw di ziar Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu baax njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. di sant bu baax ci tudde gi ñu ko tudde di sant ci kilifa yu tedd ya magam yu baax yi rakkam yañ ko tudde woon ñu tewaat fi ren tudde ko ko ñu am ci mbég ñoom ñu gis teewaay biñ ci teew ak taxawaay biñ ci taxaw ren muy taxawaay am solo boo xam néewaa na ñu ko gis ci kuñ tudde bis bi kon ñoo ngi leen di sant bu baax di siyaare baax sëñ Moustapha mi nga xam moo nekk ci bopp bi <coughs> doomi sëñ Sidi Moxtaar ku mel ni sëñ Cheikh Corok ñoom ñëpp naa su ma limee damay jum waaye maa ngi siyaare sëdd sëñ Baare yëpp naa taxawaay taxawaay biñ taxaw ci bis bi ñu tudde seen maam ji baax ja ndax wan na leen ne seen maam ju baax de Cheikh Ahmadou Lamine Bara foofu la nekkoon takk ndigam laxasaay du liggéeyal bàyyam bu baax mu Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba loolu wane nañ ci cër bu mat a mat sax am nañ ci mbégte bu baax am nañ ci yaakaar bu baax ndax Serigne Bara moom mooy ki nga xam moo jubawoon ak boromam moo daan def di dindi ci lu gaaw te lu mu wax boromam mu ne waaw kon xel yëpp dal na di tudde giñ ko tudde nañ xam ne ay taw feex rek la ñuy dajal ak ay tayseer sëriñ jig nanu doy nanu te moonu màggal ku mën la rikki nga muk malaaka bam sew mbaate nga bew loo ab yonent bam bew say pexe mën la teenu gëm sëriñ bi suñ xola dee ci daam borom baraak bi jub bi borom tuba nu doy te moo nu gàddu mooy ki attan moo cëral mam abdu nun bootu nan ngoy nañ ci daam bu yàgg ca alamul arwaaxi loola màgg borom tuba sopp jëmmam di ko bége moo gën ci yàlla gépp jaamu gu tege ci yow la xol yi di jage ku gone la dawal mbege borom tuba ci yow la xol yi di jage ku ko yëgul gone la dawal mbege bismillahi rahmaani rahim borom tuba amul morom jërëjëf borom tuba jërëjëf borom tuba jërëjëf borom Touba ragal bi te mën naa tax ba nit ñàkk la mu amoon banaa ñépp tey fa fu muy ci buumu ku borom Touba jaloore yi borom Touba xanaa rëy gëyeem na leen da koo nee talil boppam ku mën tay na moom Tuuba fa wallaahi ànd ak yow bisu penc doy na lay ku juuyoog Sëriñ Tuuba du gis gaaya jëm Tuuba bu nee xoom borom Tuuba ku diingat toroxu fasaa sëkkati yërëma ndem jaatax ndekon kenn du dem Tuuba rëyi jëf te weetalool xuloo dawoo jaaxle woo xanaa menn mbubbum ndam mi am yaa ko sol waxoona bu dul kon diw samay mbir du jëm tey bu pontu doon jam doo tutal mu ku waatu baat wax mu soo fat waxaatu doo daw ngir ragal ku naa tey dafay kabbar na jukkal borom Tuubaa